rek sant sëñ Tuubaa وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا jërëjëf mbokk yi seetaan leeral xasida TV dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag leeral xasida TV mu ngi fii ci Kaanuma ci dëkk bi nga xamante ni bii sunu seexul murabbi di Cerno Babacar Saw ñu naan ko Serigne Cheikh Aboubacar Saw bu Thierno Mansour Baro bu Serigne Cheikh Baro bu Thierno Mouhamadou Niang moo fi woote tey guddik Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ren nag xam ngeen ni mooy juróom-ñetteeli ati édition bi mooy eight édition bi bi ko Serigne bi taxawalee ak tey jamono bii nag gis ngeen moto gis ngeen Serigne bi ak ay bokkam gis ngeen Serigne bi ak Cherif yi mu àndal. gis ngeen sëriñ bi ak taalibe yi nga xam ne mooy daayira bi nga xam ni mooy daayira soppe Cheikh Aboubacar Sow gis ngeen daaray alquran ji nga xam ne moo ne ci biir kër sëriñ bi ñëpp waaj nañ ñu ngi nii nag fas yéene ak sunu caméraman di Serigne Abdoulaye Sall mi nga ni borom leral xasida TV fas dem karang am dalaay teru ji Thierno Mouhamadou Niang ak ki nga xam ne mooy oustaz Mouhamed ak ki nga xam ne Al Amin ñi war a taxawee war koo waxtaan kon topp leen ñu demal leen di frontière Gambie ak senegal jërëjëf euh, mbokk yi ba tey yéen TV euh, ñu ngi fii nag ci fi nga xam ne karang Kaarang Kaarang nag booda bi nga xam ni moo séparé Gambia ak Sénégal euh, ñu ñëw nag jël si fii ki nga xam ni moo waral jataay bi muy Thierno Mouhamadou Niang bu Mbuur bokk ci njabootu Thierno Mansour Baro teewe fi ci ndigalu xalifa bi Serigne Cheikh Baro moom la ñu jël si ànd ak euh, Serigne Babacar Sow ak mbooloo mi nga xamante ni bii moom la àndal ak ñi nga xam ni ñooy ànd ak Serigne bi bàyyi ko Mbuur maa ngi gis al oustaz Mouhamed Cissé sama xarit di ki nga xam ni moo war a taxawee jataay bi incha allahu taala euh, Mouhamed Cissé ngi noonu mooy borom waxtaan wu neex bi borom yàlla nee na yonen bi nee na ni ma ko waxee rek ci bande annonce bi euh, ñoom Cheikh ñoom Al Amin maa ngi gis Al Amin Eh, tarkala ah eh, ngi gis al amin ma ngi sama soppe al amin ma ngi lay ziaré eh, di am bekté contenté ñom ñi ñoy tàggati yonent bi nga xamni ñoy andak ànd ak Cerno eh sama gaay yaa ngi tarkala ma sha allah allahu akbar sha allah ma ngi di ziaré sama sama gaay yaa ngi nii ngi leen di ziaré bu baax ma salen coono ñu ngi nonu di yegg ñoñu nak ñoy andak Cerno Mouhamadou Niang su ko rek ñu ñu ñu ñu bu ko defee waa leeral xasida ñoom it siyaare Thierno eh, bu ko defee waa leeral xasida yi ñoom it ñëw siyaare Thierno Mouhamadou Niang sunu sang bi sang bi ñu ngi lay siyaare Niang ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di am mbégte kontaante ci sa teewaay di ñaan saw fan gudd di la laaj xadara ba di ci jiital xalifatu eh, Thierno Mansour Serigne Cheikh Baro ak njaboot gi yëpp waaw di leen ma sawu coono eh, di leen ma sawu coono ci yoon wi am nañu mbégte kontante eh, di leen wax dal leen ak jàmm ahlan wa sahlan marhaban bikum dal leen ak jàmm di ñaan yàlla guddal fan yi wéral cër yi yàggal taxawaay yi yàlla bàyyil nu la fi ndax yow sunu mbégte nga sunu fierté nga dañu lay tiitaroo di la sagoo ndax ku baaba Babacar Sow Cheikh Babacar ku ko bëgg rek nun nga bëgg ndax moom sagub Gàmbi la taarub la ndaw la waaye mu ngi dimbali ndaw ñi ci lislaam te lépp yàlla ak yéen ah, kon yàlla na yàlla yàggal jataay bi ñu am ci mbégte kontaante bu baax di leen wax ni egg si ngeen ak jàmm su ko defee ñu ànd rek eh, dem ci eh, barab ba ànd ak sëriñ bi ak ñi mu àndal eh, su ko defee ñu mën a dem ñoom ñu dallu bu ñu dalloo nag xam ngeen bu ñu yeggee rek dina euh, dinañu jàng kaamil alxuraan bi nga xam ni noonu lañ ko baaxoo bu kaamil bi jeexee nag sëriñ bi dana noppalu waaye waxtu wu nekk dana génn jiita jaami yàlla yi ci waxtu yi farata yi moom Thierno Mouhamadou Niang mu ngi noonu gis nga sama gaa yaa ngi noonu ñi nga xam ne tubaarkàlla ah ñoom dama leen di namm dama leen di bége ñu ngi noonu di ay boromi xam ah, ñoo xamante ni bii tubaarkàlla fàttali rek yéen setan ngi kennal borom Touba leral xasida yi TV ànd ceeg Serigne abdullah Sall mi nga xamanteni bi bii la lumu mu liggéeyul ci rewmi baxul lumu lu mu filmawul it baaxul ndax amna solo. sona taw ko sona taw ko mayde ala ko ala ko ittata en ɗo min koto poste duwan do liggotomi gimmoriɗo hedde heddaga ene yaha ceerno mu ne lu tax ñu ñëw mu ne ma jottili nootaade yamiroore mu ne wuyu noddaandu wuyu ndigal eywa ceerno at hmm, alhamdulillah minen gonduno ɗo duɗal ɗo sant ñelne yalla ñoo bokkon ci daara bi min dimbalante nañu ha wonko allah rokkimo ɓe yalla am lum ko may o ari ga noon mo ñaw fii ko jotondira no feewi mo ga xam ne jotanda mbolom yi mi mbi e mbaɗanamo ziyare ñune dañ ko defal ay ziyara oɗon mbiya gammo kono wona gammo dañne ay gammu lañ ko tudde mi aydu gammu ala ko ziyare ziyare la o wi ziyare nde mone ziyare wi nak o wattinde e junggam mu ne daa jël na ziar bi teg ko si dem kii moo ko jàngal alquran mbi moom min noon ko mbiɗo wondi e seeren ɓam mu ne moom ci boppam am na ay sériñam ɗum woni ceerno cheikh tidiane baro mu ne mooy ceerno cheikh tidiane baro rakki ceerno mansour baro ci mbuur to mbuur ci mbuur mbimomi joni ko mami yaha to on mune il faut mo dal dem ci serigne cheikh baro mo sakko ndigal ci moom so yamiri fekke jogna ko ndigal mi ara ballodiren mo dal di ñëw ñu dimbalante ci ziara bi jaami toon mo dal di dem ci ceerno ceerno cheikh tidiane baro yamiri ceerno cheikh tidiane baro jokko ndigal mu ne yamiri Mune ne alaji mali rakkam ñoo bokkondi Jokundigal. kambe ñoo jokko ndigal Nyom koɓe neɗɗo gooto ñoom ay benn nit la sidi en jamiri mune ne seni sidi hammed doomi Cerno mansour baro joxe ndigal alhamdulillahi ko ɗum woni ɗum woni ɗo en Mune ya sante ñalno yàlla loolu moo nekk fii ko ndun noddaandu min ngari nootaade mu ne woote wuy hay hunde non min gaddani so wana anniyaji amen moƴƴi mune amuñ liñindi dara la sen yena yu bax de wonno senegal e gambi ko hunde wotere mune senegal ak gambi benne yerew sabu min mi woni do duuɓi jeego do jangguina qur'ana na ci bir jibir kunda di janggala alquran yore ay dara alquran aywa joni benne at dum non den ko ganje yami mune kon nak mu nok fi la bokk neniraɓam naga na naga mune yeyam ñi ngi fi bajinam ñi ngi mi den jidi non ñune bu bëgg nak. nag dudal ngal ko dudal amen mune daara bi seen daara la wattane nak illa feewi mun ngeen bàyyi ci xel bu baax baax wana ngal dudal tal min jogi du ay daara boobu rek lañu am do e karang ina wadi mana dudal mu ne ci karan am nañu fi daara ɓenne kadi minen gondi ñune daara bi nak fi ak ñi nak mbur ak ñi nak gam yëpp ñoo ànd miɗen jiiɗi mbattone mabbe haqqille no feewi ñu bu bëgg ngeen bàyyi ci xel bu baax baax kala no mbattirɗon don e maɓɓe mabbe mune lepp lu ngeen ci bàyyi xel ci ñoom ci daara yi ko non allah wattir sa e moɗon modon lolé seen suñu borom def ci xel ci yéen mu defal leen lu baax nde wonno ɗum ko mana fiyaki allah mu ne loolu nag mbiru yàlla la ko ahlullahi ko ɓe yimɓe allah mu ne ahlullahi mooy nitu yàlla yi sa yiɗi noon ɓallade allah boo buggee jegee yàlla amana ɓaltoto ma no ɓalliɗo allah da ngay jege ku jegee yàlla aɗa mbo walla dang ko dimbalé tay ko njida da way wallude mo mallam lo gis ñi ne mun nga ko dimbalé nga dimbalé ko lor demo nga bañ ko lor bañ ko sonnal so ari tay won do yidi ya su fekke am mu bëgg dem mu ñew ci yow way new nan demo no yaari ko ne no mune mu bëgg dem tawa bonnantama haydara du la yakal dara la yok ala du yokkan ma rek mune yok du la wañ eyyi eh, ɗum noon mbaɗen mu mune legi nak señ bi nak lañ def ñaan ah mune waaw waaw léegi maanaam ñu def ñaan mu ne léegi nag sëriñ bi léegi nañu def ñaan ñu def faati ak salaatul faati ñu jàng faati ak salaatul faati yàlla na yàlla aar réew mi yëpp yàlla na yàlla aar réew yi yëpp bi jaahi nabil mustafa bi jaahi nabil muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bismillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان Cerno Mouhamadou Niang doon eh, jotal ay kaddu eh, kaddu yoo xam ni mu ngi jëm ci siyaara bi siyaara bi nag ni mu ko waxee eh, siyaara la bu dox ci diggante sëriñ ak taalibe muy Cerno Mouhamadou Niang mi nga xam ni tabarakallahu ren mooy édition juróom-ñetteeli at ñu ngi taxawee siyaar bi fii ci ñoomi Kanuma ci Gàmbi ci North Bank Region mu nekk jataay bu am solo boo xam ni jataayu xam-xam la jataayu diina la jataayu lislaam la jataayu teraanga la jataayu teralante la ci njiital ki nga xam ni mooy Malick Ndiaye mi nga xam ni mooy présidentu daaira soppe Serigne Babacar saw yi nekk ci ñoomi kaanuma euh, muy bis bu am solo boo xamante ni bii euh, foog naa ni incha allahu taala dara du leen ci ump ak leeral xasida yi TV nga xam ni ñooy kennal borom Touba ñoom nag lañu ñu àndal ci liggéey bi ngir mën a yaatal liggéey bi ni nga xam ni noonu lañu ko di yaatalee. Euh, Thierno ngi noonu euh, di ñëw euh, ñu ngi nag bëgg a dem fii nu toll nii ci kër gi ginnaaw bi nu jógee fële ca ñoomi kaanuma ñëw nañu fi nga xam ne mooy am dalay di boode bi nga xam ne fi la Gambia em tàqali ko fa. diggam ak euh, Sénégal ñu dugg nag biir Sénégal Kaarang fi ngeen di gis nii ñuy jógee di dox di ñëw mooy Kaarang ñu ngi nii nag di dugg ci territoire Gambia bi léegi ñu ngi dugg am dalay euh, jéggi nañu barrières bi ba yëg si nañu fi nga xam ni mooy euh, am dalaay kon nag li ñu bëgg rek mooy fi ñu toll nii dem nag yéeg ci daamar yi daal di uti fi nga xamante ne bii mooy ñoomi kaanuma fi nga xam ne fa ziara bi di am niko ko euh, Thierno Mouhamadou Niang waxee ren mooy euh, huitième édition bi ñu naan eight édition muy juróom-ñetteelu at bi ci ñoomi kaanuma euh, tabaarakallahu ñu dem ñu ngi dem ci amdalaay ak sëriñ bi ñu ngi dem ci amdalaay ak sunu sëriñ Thierno Mouhamadou Niang mu ngi ànd jikarkat yi noonu mu ngi feggoo ak Cheikh Aboubacar Sow mi nga xam ni moo woote jataayu siyaare bi di borom ñoomi kaanuma Cheikh Aboubacar Sow moomu di ko xam ni ndaw la waaye ndaw lu bëgga dundal lislaam ci réewu Gambia ndax tabax na ay daaray alxuraan ñu ci jàngale alxuraan mu yori taalibe di leen ñaax ci jaamu yàlla di leen digal itam jaamu yàlla ak sax ci jaamu ko ndax nee naa la taalibe cheikh la waaye nit ku yàlla dénk xel muy doxal jamono la ba tax muy dundal li nga xam ni mooy lislaam ci dundin wu set wu sell woo xam ni mu ko ci amal ànd kook njaboot gi nekk fii te di ay taalibe cheikh waaye dama wax ne jullit yëpp sax ndax moom jataayam bii di siyaar bi soo ci teewee di nga xam ne lislaam rek mooy dëgg ndax moom day dundal innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna aqwaykum ndax moom tarixa yëpp la dajale ci bile siyaara amul murit amul xaadir amul laayeen amul canaba amul kuntiyu amul njaasaan amul waa kër Maulana Cheikh al Islam ñëpp ay gis seen bopp ci jataay bi nga xam ni dina koy amal ñu ngi non nak di dugg ci bureau douane manam custom office muy Gambia Revenue Authority bu gambi fi ci Amdalaay seen office bi fala cierno dugg euh nga xamanteni bi ño nek fi ci Amdalaay muy ñi saytu liggey douane ci ñi nga xamni ño deg dégg kàllaamay nasaraan gis ngeen taalibe yi ak donga daara yi gis ngeen julit yi ak bokki ak wa dekk bi ñepp ñew nañ andak Cheikh Babacar Sow mu ànd ak taalibe yi ànd ak xarit yeeg soppe yi ànd ak shérif yi ànd ak surafaaw yi nga xam ni ñoo bàyyi ko ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ay sëtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñëw nañu ngir rek li nga xamante ne bii mooy ziare bi nga xam ni nee naa la dara du leen ci ump ak leeral xasida yi TV muy kennal borom Touba di image yu set son yu leer neex setan seetaan deglu lolu nak ki len ko indil moy Serigne Abdoulaye Sall mi nga xamne mo ne ci caméra bi ñu nango ñaan Serigne baangi ñaanal wa custom office nga xamne moy poste bi nek fi ci am ñu nango ñaan ñu wax amin yéen ñiy setan bu ngeen ne amin yalla nango amin na ñëpp wax amin rek yalla nango ñaani amin waaw amin amin mu ngi nonu president malik ndjay mu ngi nonu moy president daayira soppe Serigne Babacar saw mu ngi nonu ñu ngi non di génn ci euh, custom office bi eh, eh, ñu ngi non di génn Thierno Mouhamadou ñang mu ngi nonu Thierno Babacar saw mu ngi nonu ñu ngi dugg ci immigration office bi fa la ñu jëm muy Gambia Police Forces Gambia Immigration Department am dalay border post bi nga xamni mo nek ci note Bank region euh serigne baangi nonu di dugg ci office bi ngir saafu wante ak immigration yi ngir ñaanal leen eh, ñu ngi noonu ni mu duggee ci bureau custom noonu itam lay duggee ci fi nga xam ni mooy bureau immigration seen office bi ngir ñaanal leen ñu gërëm tam Gambia Armed Forces xam nga ni ñoom tamit seen ndaw yi ñu ngi fi ànd ak ñun ci liggéey bi ànd ak Thierno Babacar Sow fas yéene yor wàllu kaaraangey sëriñ bi ba keroog jataay bi di jeex kon ñoo ngi gërëm AIG muy njiital police waaye ñoo ngi gërëm itam euh, ki nga xam ne mooy CDS bu Gambia nga xamante ne mooy njiiti soldat di gërëm Gambia Revenue Authority di gërëm mboolem ñëpp di gërëm njiiti réew mi His Excellency ndax bu jàmm amee moom la ndax réew ka ko jiite bu amee jàmm ñëpp am jàmm ñu nangu ñaan wax amin al amin ngi nonu ci nak moy abdul Aziz al amin di ki nga xamni ni neena la euh, bu ah dana dana nu ko xam ci tag ga yonant bi waaye sunu xarit oustaz mohammed Cissé mi nga xamni ni neena nee na bi nee ci la dekk ci aduna wërngal kap ñu xam ko ci muy bégal jam ji ba kenn du ci doyal momit ñewna ni nu ko baxo di ak ñom tay daal la tay guddi na la guddi ci katanu yalla xamna ni ni ma len gisee nii indeeti nan lu es, at mu ne nag lu esay ñew eh, ni ñu ko baxo di and ak ñen ah eh, xamna ni dal tubaarkàlla naaj bi mom fi waye nag aduna mom lu bax yombul waaw lu bax yombul su ko defee rek Cerno ngi euh mu ngi nonu Cerno muhammadu Ñang ak ñi mu andal baik ko cahar rabu xadara bu mag ba Serigne si Ahmed Tidiane Baro mum sunu mam cierno Mansour Baro ak njabot gi yeb ndeysaan neena la at mune siara bi yokku te mohammed cisse waxon nako daw mohammed cisse eh borom takusani sering Serigne babakar gi ah yalla nanu ko fekke daw bëggoon na tew teew dogalu yalla ak sunu borom waye ci carton yalla yalla nang ko gëna man waaw ni nga lay yobantu nuyoo sunu xarit ba Ismaïla sunu soppe ba sa waaja nga xamni yaanu ko indi lon ah ñom bekté contenté buñu leen gisé dañi kontaan ndax yeen sak ngeen ci diiné ji sak ngeen ci l'islam bi ndax ay ndaw ngeen ba ndaw ñi buñu leen gisé dañu leen di ñé ba man am xémé roy leen roy ci li ngeen ne té loolu moy njàngale mi gëna gaaw ndax jamono toll na foo xamante ni dafa bari luy këfe ak luy fëkke te loolu yëpp ku ci mucc rek santal yàlla yàlla dolli leen jàmm yaa ñu indi loon al amin indi waat nga ko laa ilaha illa laa رب العزة لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا رب العزة والجبروت رب الملائكة لا إله إلا mooy baayu nabi yaay aminata mooy yaayu nabi alimatu sax nampal nabi kooku jirim la woon yaa rasulallah ma baaro rasulullah sallallahu alayhi wa jullit yi ñoo bëgg rasulullah ma leen ma baaro rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni leen ma baaro rasulullah ni leen tijaan ñi ñoo wer de rasulullah bana bi doogul la ñàkk

yëg si nañu ci fi nga xam ni mooy kaanuma ci kër bu Babacar saw bu ñoomi kaanuma ci ziar bi nga xam ni moom lañuy amal samdi tey jii yemook fukki fan ak ñett ci weeru mai on the 13 of mai muy bis boo xam ni mu ngi ciy ànd ak sëriñam Cerno Mouhamadou Niang nga xam ni sering bangi nonu di waaj a sikar, kat yaa ngi jigen nyangi gor nyangi eh, Cerno mamodo nyangi ngi nono Cerno babakar Sow andak security bi Gambia National Army ñu nonu di yegsi sering bi gis nga darah yi daara Cala al badru alayna lañu doon dégg nga ko Cerno Mamadou Niang mu ngi noonu di yegsi mu ngi noonu di yegsi mu ngi noonu di yegsi Cherif Cherif a ngi noonu cerno momo di a ngi nonu mu ngi nonu cerno momo di a ngi noonu mu ngi nonu mu ngi nonu di nuyoon teeg wa kër cerno babakar sawi ndaysan mbay sunu jàqee mbay sunu xey mbay sunu tité bay ba ko mooy si laa ngi gëm si rat bay jàll dala ngi gëm si rat bay jàll xale ngi gëm si rat bay jàll Thank you. sallale galban matso kan layaru musu waka sallale ya guda ma annabu ila galban ma annabu ila sada تجدك قاصدا أرجو رداك وأعتمي بهماك صلى عليك الله يا علم الهدى ما أنه سهل يا مسواك فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المآل عليك الجمال ويا ذا المال عليك إكال يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المال عليك قال تمر الليالي بنفسي ومالي ويا قوم مالي عن الموت سالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المال عليك إكال عليه مال ويا قوم مال عن الموت سالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المال ألا إن مولاه أراد استناءه ألا إن مولاه أراد استناءه فحسن منه خلقه ولباءه فأظهر منه دينه أساءه بليغ إذا استعصى لسان أداؤه لسان بقول الحق مندلق الرب كن جول يمرادين ها وقت فاطمة كن جول يمرادين ها وقت فاطمة وناتك قل قرقب قرب منما kala mo juulde saala ɓaani salligo terde ma wota sikkunde ma juulde ina yewta noppi ma mm. saɗa juula sa ñahu saani sallikto ahmada mbokk yi na ñëpp toog na góor ñi toog jigéen ñi toog cerno yegsi na am na nu mu baaxoo di tàmbalee ziyaare bi su ko defee bu ñëpp toogee ba noppi rek Cerno mën a joxe ndigal ci ni ñu ko tàmbalee kon su ko defee ñu jox Cerno mu jàllale li mu bëgg a jàllale dugg ci waxtaan wi ak kaamil bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا Ceerno nee na alhamdulilahi rabbil alamin nee na ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp nee na ñu ngi bég ci ñëpp nee na mi ngi bég ci ñëpp mbég goo xam ni day tolloog mbég gi yàlla bég ci yéen ndax teeru bii ngeen ko teeru nee na teeru bi yàlla rek moo tax nee na du man cerno nee na téere yàlla bi di alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu loolu nee na lii samay sëriñ la muy Ceerno Cheikh Ahmed Tidiane Baro radiyallahu taala anhu nee na lii ndigalu Ceerno Cheikh Ahmed Tidiane Baro la nee na ñi fi nekk ñëpp nañu xam ni lii ñuy def ci ndigalu Ceerno Cheikh lañ koy defee nee na itam nañu ko jàppe noonu neena xalifa yi nga xam ni fekk nañ leen fi. shérif yi. shérif yi. ak ñi nga xam ni dañoo wattu alqur'an. ak imaam yi. ak borom dëkk yi. nguur gi yëpp. nguur geeg notable yeeg yëpp. nee na bég nañu lool lool lool. yal na yàlla fay leen amiin. nee na lii liggéeyu yàlla rekk la yàlla rekk moo ko mën a fay nee na bi nu agsee kaarang ba léegi taxawaay bi benn la nee na loolu yàlla rekk moo ko mën a def ñëw nañ ci ndigal ci ndigalu sëriñ si alhamdulillah ñu ngi koy sante yàlla نانا فك نان في مكني يب نانا شريف نونلاي غاتانو نانا نونجلا واتشيت سا واتشو نونلاي واخ بسم الله الأهل أهل الله والتلاميذ تلاميذكم الإخوان إخوانكم والجيران جيرانكم والعلمان علمانكم والرجال رجالكم والنساء نساؤكم والدار داركم ونرحب بكم كما نرحب يا الرسول عليه

الأسماء رضي الله تعالى عنها وهم يستترون ويذهبون إلى مدينة المنورة ذلك الترحيب ذلك الترحيب نرحب نرحب الشريف الشريف إن شاء الله تعالى نقول لك مرحبا بك وسهلا وفرحا والنية وقبولا وردا إن شاء الله تعالى نحن كذلك نرحب الحمد لله ونفرح بقدومكم ونرجو الله أن يعيده علينا وعليكم سنين عديدة آمين باليمن والصحة والعافية آمين نانا الشريف نينيكو دالالي نانا كادو ينكو دالالي موميت مغني دالالي نونو ànd nag dalal bi na ànd ak wërsëg amin ak wér nee na moom it mi ngi delloo loolu alhamdulillah alxaflu xafluka wa ijtimaa ijtimaauka is anta jaddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam أجد رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام يعلو ولا يعلى عليه يعلو ولا يعلى عليه كما على كتاب الله كما على كتاب الله كتاب الله كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه الحمد لله الحمد لله ذلك قبلنا ذلك قبلنا ذلك ذلك وردينا ذلك وردينا ذلك بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا هو قدوتنا هو الذي هو الذي جعلنا بهذه الطريقة جعلنا بهذه الطريقة طريقة الإسلام ولكن, ولكن وأخطر ذلك وأخطر ذلك هذا الإسلام هذا الإسلام بإسلام أبينا إبراهيم بإسلام أبينا إبراهيم عليه السلام إذا إذا نفرح بذلك نفرح بذلك بسم الله نتكلم بقدر طاقتنا فقط نتكلم نتكلم باللغة العربية باللغة العربية باللغة العربية بطاقتنا بقدر طاقتنا بقدر طاقتنا لا بقدر صحتها لا بقدر صحتها إن شاء الله إن شاء إذ نحن ردينا ردينا بولارية بولارية لا عربيا لا عربيا بسبب ذلك بسبب ذلك أيوة. نلتقد منها شيئا نلتقد منها شيئا فشيئا فشيئا ولكن ليس بالإتقان ولكن ليس بالإتقان الحمد لله نحمد الله الحمد لله نحمد الله بعد ذلك بعد ذلك نقول نقول مرحبا بكم كلكم من جاء من جاء بالنية ومن جاء بقدميه ومن جاء بغير ذلك بأشياء الآخر إن شاء الله incha taala asalaamualeykum wa rahmatullah ah kon sëriñ bi nee li ñuy tàmbalee jotaay bi mooy jàng kaamil alquran ba mu àgg bu àggee moom mi mu jàng xatmu bi wala kum ko teralee rek incha taala ko defee ñu jox way juru Babacar bi nga xam ni at mu jot bala ñu ubbi lii moom mooy dal sëriñ bi ci kàllaama yu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 e jettiɗen allah sababu nde en kawriɗo rowani en duƴima allah jabni du'a umen o acci en ha hitande yonti kadi en kawriɗo ha hande miɗen mbiya ceerno o tan no woɗen wiide moni tan bisimilla makko koɗo subaka jomwuronango e hoore a tawani ɗo ceerno a tawani ɗo hay goto sina talibaji bisimilla maɗa ko galle ma ko ɓesgure maɗa cagal nde ceerno e bismiɗen ceerno eɗen mbiya kala mbo o arde ɓesgore makko talibaji makko fof miɗen mbiya ɗum bisimilla moɗon no haniri no yoɗiri kala noon kadi no yoɗirani poton andu koye amin woni kono min nela kam ko haalde no yoɗirtani min mbiya on bisimilla moɗon bisimilla min jinno noon ko fuɗɗade qur'ana o ko adi on yottata gammo oɗo kono si o noddi ha pari o wiyataɓe ko onon jii ɗum noon omo welti hen omo du o kono omo ñaagi ceerno ha hande kadi yo ɓeydu duwa o makko o kawral ngal e nder saare he gila e julɓe ɓe sukaɓe rewɓe mawɓe foof omo ñaagi on duwa o ha hannde ne kadi o wi omo jippina cirif o sirif garɗo o ɗo oymo wiyamo bisimilla makko jonde nde ko jonde makko e dendangal yimɓe saare ɓe kala ko neɗɗo waɗi hen jinnoɗo ar wawani ar kono waɗi hen guel muɗum omo ñaagi ceerno yo waɗ hen du'a o allah waɗa jaam e leydi he waɗa jaam e galle he waɗa jaam e dendangal ceeje ɗe aca asalaamaaleykum wa bu jot nag noonu la ñuy def alhamdulilah foofu lañ leen di fekk nee na soldats yi mooy homme de tenue yi waa police ak militaires yi at bu jot noonu la ñuy def nee loolu yëpp nag yàlla ak yonent bi rek a tax yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla fay bi jaaye nabil mustafa sallallahu alayhi ñu gàttal rek ñu jublu ci liggéey bi incha allah audu billahi min alseytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e mbe kumo sutuyandila commune sio meta mba folamoroyon ko bisimillah saateŋo kono jaŋ anin ala taliboolu anin luntaŋ kotoŋolu minnu bota naŋ dawo daŋ sirifubaa feleŋ dala jaŋ ate le taŋo beŋo ti nŋa a faye mba falayen ko bisimila ñiŋ beŋo ntolu ŋa kontaanoo soto jee baa ke babukar de ka kumandiroo ke bari niŋ ye kumandiro ke doŋ a ka yitandi saate le ko ali tolu le taamu an tolle tamo because alquranu min ɓe na karanna jan a kana karan ñin satewlo kono jan ni moɓe niyo sotla walla dulaɓe niyo sotla aɓe kela kanumale foloɓe ala niyo tala woto mo ala tentol to min ya lon ko aye folodula soto bara man dandula soto n fo moroye n kontanta baake n kontanta baake kanin ala talibol jiya jang sawo san kana kana duwan na dimba aliye ka duwan ka duwanna bankoye ka duwanna jamanoye wo kontano wartan kambake moroo mba fala en ko bisimilla andu mi ala dan la duwa o duwa keta jam fanan alama ala ya duwa jaabi ala nin moro hormoto anin alquran o min bena karanna o hormoto anin cilañima hormoto fewo fen nin a duwata jang alama ala ya duwa jaabi mba fala mo be en ko bisimilla kabirin babou karda taliɓolu a terolu a kuke ñoolu minu ɓe banko kanjam minu ɓe sénégal fen fen naata jawwalin walla min hamoɓe jan kana jawwalin a mannano bare ala ɓulu feŋo naata mba folaɓe yen ko bisimilla mba folaɓe bisimilla mbe duwa dan lamoro ɓulu fanan asin so duwala ala sitteɓen kamɓe o sabati ñin sateo kono jang ga ñoomutanga ke kilimoti ɓaw ala ta laman soy a wala lafin jongoliye ningal keta kilgoti doron alika kayro min ñine ate ɓulali ba sotlale woto mbiya dan la asin soñe duwala jang fo ara si hayro te ɓen samion sabati sate kono jang inchallah si moyrolan ko ka alquran o lamoy ma fo ke ka moyde ka lamoy ni ya lamoy ni nga karan nali ɓe kañanta barajo lale woto fen fen ɓe jang dindin ceba ni mantra alquran o mantre ɓulo kono wote si akke alquran o lamoy laate alama ala en ɓeeso abarajool assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh neena dañu andak ak waa kër Thierno Mouhamadul Mansour Baro turando turandoowam Mouhamadul Basir jallo neena way jurum bu góor mo dan wayal Thierno Mouhamadul Mansour Baro moo toog nii ci peggu Thierno féete ko wàllu càmmoñam Thierno Mouhamadul Mansour Basiru nee na mooy baayam moo daan ànd ak Thierno Mouhamadul Mansour baayam moom mi toog moo daan woyal Thierno Mansour Ba nee na lu defoon ci baayam. ci baat bu neex ak maxaarijal xuruuf ak maddu rasul yàlla delloo na ko ci doomam nee na moom moo raw papam sax ci wàllu yooyu li mu ci mën papam sax mënu ko woon nee na kon loolu yokkute la mi ngi nii toog nee na buy bi du xool téere nee loolu la ko yàlla defal. nee loolu ñaan la. nee na ñaanu Thierno Aliou Baro mi ngi ci. ndax Thierno Aliou Baro soppeem la. nee na way Thierno Aliou Baro lay way. nee na Thierno Aliou Baro. way na lu bari. nee na way yooyu yëpp mi ngi ci dënnam. nee loolu ñu ngi ko ciy santal yàlla bu baax pour nu xamee ko noonu rek xam ni daal am na nu gan nee na madiixu la rasulu alayhi salaatu wasalaam nee na madiixu la cheikh sidi ahmad tijaani radiallahu anhu nee moom moo toog nii nee na incha ngeen xamee ko noonu nee na dama ko doon feeñal rek pour ñu xam ko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 صدق الله العظيم آه. وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم آه. ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين آه. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم آه. وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم آه. واجعله لنا هجة يوم الدين آه. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسطولات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب دعوات اللهم تقبل تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلت أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو زيخ اللسان أو وقوف بخير وقت أو إدخام بخير مدخم أو إزهار بخير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحسب وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الآداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقتل لنا بالشر والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل دين شديدا وبيع وجوهنا يوم البعث وأتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عزيم رفيع قلوبنا واجعل على أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة الليل اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوهدة ومصباهنا في الظلمة ودليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة وعاصمنا به من زيخ والأهواء وكيد العداء يا رحمة الرحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك لك زخرنا وإيتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه به رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه اللهم بلغ ثواب ما قرأناه لروح دد اللهم بلغ صواب ما قرعناه لروح داد سو اللهم بلغ صواب ما قرعناه لروح داد سو اللهم بلغ صواب ما قرعناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آه، صلاة الفاتحة إله برم كانو ما لا إله سن بكر لا إله برم كانو ما لا إله جي الله لا لا إله جي الله لا Kano malayalau San Bakar la Lajay Yàlla lii nag teraanga la joo xam ni Gambia yeb sen teranga la waaye nag kaanuma la ko yalla cerele julit ñi ñep ñoko mom waye waaye kaanuma la ko yalla cerele ñoo ngi ñaan yalla ki nga xamni mom mom terem mom mom ay jaamam ñu ngi ñaan yàlla. képp koo xam ni. koo xam ni. yàlla wërsagal na la. nga am benn dërëm. nga jëf ko ci lii. yal na yàlla faj aajo joo mën a am. su fekkee ne dafa ñàkk a juboo. ci këram. yàlla na ko yàlla dindi. su su fekkee ni doomam juy jàng. jang bi am na fu mu toll. jàng bi am na fu mu toll. te bëgg na mu yegg. te bëgg na mu yegg. lu mu ci def. lu mu ci def. mu nekk sabab. yàlla mu nekk sabab. maanaam jàng boobu àgg. jàng boobu àgg. su fekkee feebar. su fekkee ne ku feebar. feebar bi yàlla na ko yàlla dindi. loo ci yéene nag. loo ci yéene. loolu ngay am. parce que yàlla kese moo nekkee. parce que nag yàlla kese moo ci nekk. bu ñu doon yelwaan. bu ñu doon yelwaan. ñu yem mbour mbour mo ëpp fii suñu nit ñi daal foofu la gën a tayit ñañu xam mbuur xamuñ ñu kon duñu xej fi kon ñu léralal leen yalwaanuñu dedet dedet ñu doon yalwaan bu doon yalwaan fa mu juddo fa mu moy weli ngara ñu yobbu ko fofu alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin papaam nag mu ngi fii. papaam bi ko jur mu ngi fii. dafa dafa jël doom bi. moom nag dafa jël doom ji. mu delloo ko yàlla. mu delloo ko yàlla sunu borom. mu suur xëyam. mu suur xëyam. mu suur maanaam gontam. mu suur gontam. mu suur lu mu ko doon maanaa wammal fas. mu suur li mu ko doon wammatal fas. pour mu béy pour mu béy. mu suur lépp mu suur lépp mu jox ko yàlla mu jox ko yàlla. alhamdulilah alhamdulilah. loolu mooy payam tey loolu mooy payam tey. lii lu am solo la lii lu am solo la. alhamdulilah dañu ànd ak ay ay ay taalibe yu bari. alhamdulilah ren dañu ànd ak ay taalibe yu bari. waaye Moustapha Dem. waaye Mouhamadul Moustapha Dem. moom itam. moom itam papaam noonu la ko defoon. jël ko yóbbu ko Fuuta Tooro. jël ko yóbbu ko Fuuta bu ñuy wax Ongo. dëkk bu ñuy wax Ongo. mu jàng Alqur'aan. mu jàng mu mokkal ko. mu tari ko. ñu jox ko ñu jox ko Ijaasa. lan mooy Ijaasa Alqur'aan. lan moy buñu suxon téré bi. mooy bu ñu suuxoon bi. ñu jox la film ñu jox la pilim. ak kayit nga delloo téere bi yëpp. nga ci bàyyi dara. doo ci kayit boobu. kayit boobu. la Moustapha Dem mii. yore yore. lañ ko bëgg a maanaam terale. lañ ko bëgg a ñu déglul maanaam xale bi. ñu déglul xale bi. maanaam mu tari. ñun yëpp nag. ñun ñëpp nag. aaju kese lañu lañu lañu indi. aajooy kese lañu indi. te ci dara. te munuñ ci dara. aaju yooyu. aajo yooyu. nañ ko teewal fii. nañu ko teewal fii. buñ ko teewalee. buñ ko teewalee ngir yàlla. ak yonent bi ak yonent bi. yàlla dana ko faj. yàlla dana ko faj. incha allahu taala. kon nañu déglu ko rek. kon na ñëpp maase déglu. alquran nag. alquran bunu koy jàng malaaka yàlla yi dañuy wàcc ñu ngi tegalanto ba ci arash bo ci waxe mana ben kaddu bo ci waxe ben kaddu alquran bu malaaka yi dañu lay rëbb malaaka yi dañu wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu du nopi bi rek de. du nopi bi rek de da ngay dal. kon nañu deglu ko. kon nañu déglu. mu jàng lu mu doon mana ma lu taxoon mu joge dem mana dara mu jàng lu tax mu bayiko ko ci ay wayjuram dem jangi alquran ca dara ja. jang bi nak ñaan la. jang gi nak ñaan la. du gistal du gistal déedéet. dañ ko bëgg ñaanal. dañ ko bëgg ñaanal. parce que xale bi mu ngi mel ni maa ko yar fu ma ko yemloo foofu lay em fu ma koy loo foofu lay xëy moo may xiimal sax nag ataaya may naan taalibe bi nga xam ne jubóowu leen taalibe bi nga xam ne jubóowu leen kooku du la defal ataaya de kooku doo jël xaalis dénk ko de maanaam yeneen yonent yi itam doo ko ko yónni de waaye lépp nag la may defal loolu nag laa bëgg ma ñaanal ko yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na yàlla yokku xam-xamam commencé wut nag déedéet même ku wattu alquran wala moom ijaasa alquran ci commencé rek la nek bo xamone luy xam-xam. bo xamone luy xam-xam. nga xamni ni commencé wut. fi la wara mana dem jàngi. fi la wara mana dem jàngi ji. incha allahu taala. incha allahu taala. lu lu mu ci am. yàlla na yàlla def muy muuram. bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa alli wogi yàlla def ci barke yàlla def ci nuuru yàlla def ci maana aywa rifatu yàlla def ci wifatu rifatu rifatu yàlla def ci maana husnu yàlla def ci husnu yàlla def ci xayru yàlla def ci xayru yàlla na ko yàlla defal loolu yàlla na ko yàlla defal loolu bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bismillah kon su ko defee deg ngeen ni ko cerno sunu sëriñ waxe deglu alquran àndut ak wax àndut ak waxtan bëgg a jariñu ci alquran it deglu la laaj ngir nga mën a jariñu malaaka yi man la seddi li nga leen di ñaan ndax fepp fo tok ñi jang alquran ngay wax mbollem bakkar bu ñu jël yow mi wax lañ koy soti ka nopi nak moy jariñu kon na ñepp nopi deglu alquran ku mana joy baxna waye deglu gi ak tewlu gi dafa am solo ndax seri ci la bo xamni bari na ñu fi toog musuñu ko fekke ci seen dundu bari na ño xamni fi fii musuñoo fu nit ku wacc alquran baqara ba minal jannati wan nasi di kotari. tari kon yen soxna yi bu ngeen ko fekke te yoru njabot njariñ la ci kenn ku ci ne sa soxlay biir am nga ko am nga soxla boo mënul a faj te yaakaaroo ci ku dul yàlla kon nañu déglu tey di ñaan ci suuf ndax ñaan ci xol jóge te yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen kon ci biir xale bi aaya yi muy jàng dee leen ci ñaan seeni soxla ku ko ci ñaan yàlla faj ko waaye ku ci dégluwul nag ne fi di wax loola moom des na ci sa digganteek yàlla kon yàlla nañu jariñu ñun ñëpp yàlla na nañu fi jóge képp ku feebar wér dootoo gis feebar yàlla nañu fi jóge képp ku ñàkk am lu dul jeex bay dimbali yàlla nañu fi jóge képp ku jàqoon dëkk ci bànneex yàlla nañu fi jóge ñi bëgg borom kër yàlla may leen i borom kër yàlla nañu fi jóge ñi am borom kër te ne ciy jafe-jafe yàlla sott ci ndox mu sedd guy ba ñu yaakaar ni dunduñu woon ay jafe-jafe ci barke alquran kon ñu déglu aouzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 sadaqa allahul azim takbir takbir takbir taxlil ah sëriñ bi dafa mel ni mag leen ma baara rasulullaay juddoogul la ñàkki baat ba nabi juddoo yaay ja toog di jooy te naan billaay li yëkka metti waay abdallaay gisul yaa rasulallah ma ne ci ñaari weeram la ñàkk yi baat ñeenti atam la ñàkk yaay juróom ñetti atam la ñàkk maamam jirim la woon yaa rasulallah mën na ba bàyyi jafaato yayam taxaw sallallahu alayhi na ko woon bokki bàyyi woon mu dem ba abduwaa amina faatu jirim la woon yaa rasulallah mën nañu sang amina نبيته محمدا وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا